sénégalais yi maa ngi nuyu ñëpp kenn ku ne sa tur ak sa sant dossier bi nag duma ci wax parce que amu droit wax ci mais dinaa seetal sama der kaaminu alxuraan laa yor kaamin aji nga ne man maa la wax ne nga naan kafe ak xaw ma lan nga boole kaak moom pour sa ëmb bi day nga ne yow bi ngay génn kër gi kenn dàqu la yow yaa demal sa bopp nga daw dem sa kër maam nga ne ba ngay duggaat ci biir kër gi man maa la woo téléphone na la ñëwal parce que kër gi lu fi nekkoon amatu fi bu fekkee sama kër am na massage bëri bëri wala yow bi ngay génn kër gi man dàquma la wala man maa la woo téléphone ne la ñëwaat ci kër gi wala ma wax la ne la jëlal café nga naan ko pour sa ëmb bi dañ kaamil alxuraan laa yor bu fekkee loolu laal naa ci dara yal na ma yàlla suñu borom bi toroxal yal naa alaku si lu yàlla suñu borom bi bind ma gën see yées yal naa yàqu ba faw ba Sénégal yépp teg ci seen bër Adji Sarr man xawma lu bon jullit laa